Réumi 24 TV. Le 5 juillet 2021, qui le recteur Ahmadou Ali Mbaye nga xamante ne moom il sous les ordres de ce régime en place ci le ut ay tapalé, ut ay charges de fallacieuses fallacieuse ñu devons nous dàq non seulement pas seulement à l'université Cheikh Anta de Dakar.

le recteur Ahmadou Arimé j'avais vu un article j'avais vu une article de presse que soit état du Sénégal répression mémorandum état du Sénégal également. Euh,

lañu ñu baral parce que ba fu ñuy waxee géey li amul benn bërëb bu ñu tegal ci kaw taamu loolu nekkoon benn sorte de de de de résumé ci fi fi nga xam ni fi nga xamante ne jot nañ fa jaar ak li nga xamante ne jot nañ ñu ko teg en terme d'injustice parce que c'est pour permettre à nos compatriotes sénégalais et à vous journalistes ngeen mën comprendre un peu nous nous retrouvons dans les deux jours. Suite logique. Et aboutissement d'une entreprise mise en place par le régime de maquissage, de liquidation et d'acharnement et de persécution. Il y a une institution qui est rendez-vous. Vous vous rappelez à l'instant que vous avez eu une idée de tout sans que vous avez. 500 ans, vous avez eu une de tout ce que vous avez. Nous, on nous fait. Vous avez des d'attaquer sur l'avenir. Attaquer sur l'étude.

pour déposer une lettre de protestation adressée au, au, ministre, au ministre de l'Intérieur loolu suñu àq ak suñu yelleef ñu jàpp suñu ay camarades filmé filmé nii lay toog du mu bàyyi ma sax suñu coordonnatrice nga xam ne dafa tawat moo tax yëg siwul ñu yorante kamar ci la bokkoon ñu jàppale torture leen duma leen du muy méttee méttee méttee méttee sànni leen ca àll ba ñu sànni leen côté ñoom ay jigéen joxuñu leen seen ay téléphone amuñu fu ñu mën a wootelee ñu sànni leen ci ci filao yu ñeneen ñu bàyyi leen ci autoroute à bi mettre seen vie en danger ba mujj gi dañoo jël oto di daw ci ci ci autoroute yi ku ñu romb rek ramasser la lii la police sénégalaise def suñu ay camarades ànd ko ñu génn ñëw di ko ñaaw def déclaration ngóor yi nii ni foon ndaxte moom doon interviewé fu ñu taxaw di def déclaration nga xamante ne taxawuñ sax ci tali fa la ñu fekk brutalisé ñu jàpp ñu yóbbu yóbbu prix yóbbu yóbbu yóbbu commissariat Dakar Plateau boobu léegi nag.

por